Euh, d'accord Mortal. Mm-hmm. le Mortal. le juin mm-hmm. université du tac mm-hmm. journal mortal. le cerveau c'est le cerveau c'est le commanditaire <laughs> gars di la wër ah il la wër il paraît que Diapo le premier juin Quel est euh, le Diapo le 12 août

université amatu fa mhm. dara amatu mhm. mais man je suis un étudiant en master 2 mhm. mémoire lay def donc à temps réel ma université def def sama recherche parce que je suis un étudiant régulièrement inscrit je le rappelle je suis un étudiant régulièrement inscrit à ma deuxième année en master 2 donc dama war a université di def samay recherche jour bi may japp dama ñëw université def def sama recherche muy génn di ñibbi ñu jàpp ma si rond bi. kan moo la jàpp. waa point e ñoo jàpp. police point e. e ñoo ma jàpp. léegi ba la jàpp ñoo ma jàpp vers dix heures. Mm-hmm. à point E euh, si rond point bi ma nekk fa ay booru dix heures et demi. waaye SU ñoo ñoo ñoo récupéré ñoo ma ñoo ma mooy sûreté urbaine. sûreté urbaine. Mm-hmm. ñoo ma ñoo si. Mm-hmm. mais euh, Baron moom en personne dane moom laalewut ci mbir yi manifesté wul xam nga nit sax ma dañ ko jiiñ dafa yàq dëgg la mu taxaw ne man yàqu moom mais manifesté naa manifesté naa tamit étudiants yi ñu am na si ñu taxaw ñu taxaw ne ñoom manifesté nañ dëgg la moom nee na manifesté wul eh. yow est-ce que jour euh, Abdou sincèrement ku dee ak sa bàmmeel mhm. man du jaratu tax may fen dëgg la mhm. Pastef laa bokk je suis fier d'être un Pastefien mhm. donc

parce que man dama dama nek nit ko xam ne xass bu xas ba dugg la ma duggam jax tàkk man kuma xam ñep ñuma xam. xam man tal mortal taal. lu dugg rek si duggam jeex tak du ma dara. kon kon su ma su leg léegi maanaam sa tur daal. sama tour merci. mo mm-hmm. raw sama jëm sax. Mm-hmm. bon euh, Cheikh dafa la posé question. dëgg la ah, bu crucial ma loolu tax. exactly parce que yéen kese nekulen fa yeen ñaar kese nekkuleen. dëgg la dëgg la dèjà am nak ñeneen ñu jàppoon. ñu deug la dëgg la.

da ngeen université bërina ay étudiants yu fa nekk Pastef. Mhm. macha allah mhm. mais yàlla suñu borom. def nit ñoo dafa def ay nit ñoo xam ne li mën a bokk rek dañuy fës. Mhm. engagement sama engagement. man moo tax loolu. fu ma dem rek fépp fépp man foo xam ne naa fa rek. dama sama bopp. mais avec damay dal. Ah, yàlla xam na ni. Abdou.

laa loger. de ministère bu léegi fa laay loger. su ma jógee sama sama sama dëkk. di ñëw Dakar. du ma wàcc fenn université laay wàcc. tout droit. tout mooy sa kër mooy sama kër. mooy sama lépp. kon donc man nan laay dem di taale sama kër moo ngi mel ni rek sa kër nga taal ko. mais moo taal non c'est loolu mu loolu loolu xel mënu ko nangu. moo taal waaw. chapiteau du kër. chapiteau du kër dëgg la.

pédagogique dama xaw nag dama xaw kii quoi dama ko dër fa ñu comprendre loolu macha allah <laughs> dama xaw dër yaa ngi dégg université bu ñu koy taal boobu maa ngi campus mm. ay ak droit ay boobu yàlla xam na ni ba affaire bi di am mm. maa ngi woon ci biir mm-hmm. nekkuma fële yan preuve mooy yan preuve moo ñu mën a moo ñu mën wan ni yow instant bañ koy taal yaa ngi fa waaw université tey bu ñu ma xasee ba jàpp ma fële SU. enquêteur bi. biyaay yi. non loolu après des waaw waaw déglu ma xam tax ma. non non moo tax la moo tax la question bu ne. moo tax la ban. réew moo ñu wan ne ni yaa ngi foofu noonu. moo tax la mais ba ma répondre lu tax ma wala ma dëgg foofu noonu xam nga tax. Mhm. parce que bu ma demee adjudant biyaay daf maa wan ay photo may dox si biir kii bi université bi. Mhm. man may ah, en système mal la je l'assume. Mhm. may dox si biir université bi. ci bir en plus bi ma ci dox. kon donc ma ngi ci bir en plus bi mais pas fële. ah d'accord accord chapiteau bi. chapiteau bi d'accord accord waaw ngi ci bir dama social Abdou Vazi dama ko bëgg a parce que. Mm. waaw xam nga ne attaque bi am université. Mm-hmm. muy saccage yeeg mm-hmm. euh, incendie yëpp. Mm-hmm. c' ciblé. exactement parce que direction du coude. la ñu en plus aussi. fac droit. exactement boobu ñëpp ñu ngi wax naan droit au Sénégal voilà lii du droit. waaw kay vraiment. Mm. dre euh, kuddu tamit mare nañ peut-être mare ngeen kuddu. ñi ñi ñi koy taal dem taali kuddu. ak yenn ak yenn oto yi. Mhm. peut-être taaluñ fi nga xam ne fi ngay dëkk. parce nga xam dafa xaw a lakk sax oto yi ñoo ko xaw a ñoo ko xaw a def. Mhm. accès si tamit parce que boobu ñu naan journaliste yi voilà di attaqué journaliste yi quoi euh, xam nga Abdou booy wax nii daa mel ñoo taal booy wax nii nii fekk ni ngay waxee. Mhm. dafa mel ne kon ñun ñu waa Pastef ñoo taal université. kon a xam n'y ni pas sax fu taal amuñu essence. Mhm. amuñu almet amuñu dara. Mhm. d'accord premier juin bu mu affaire amee image yaa Imaginez, daw. la chambre. Mhm. waa maire nationale je répète. mais dire dàq ci étudiant ñoo xam ne sax bokkoon sax Pastef xamuñu dara lu xew ci université bi dañoo jaañ am cours di ñibbi man boobu maa ngi dee ak sama sama ak sama benn waay ñu bokk ma gis affaire yi waa maire wàcc yi wàcc am seen jaas di wàcc man ma sol sama dàll wàcc mettre ñun en face avec ñoom mm-hmm. parce que la du ma bàyyi sama

est-ce que nekkul dañu instant ni nit ñi dañoo nit ñi dañoo mere trio beaucoup quoi maanaam les trois. mais yow est-ce que est-ce que nous, ñu ñu taal ne euh, yëpp. nekkuñu à APR. comment ça est-ce que nekkuñu waa APR. da nga jàpp ne ñoom dañ ko taal pour pour accuser leen. waaw mën na nek? Hmm. mën na mais mais parce que parce que agressions bini, bii nii bu hmm. ils sont capables à faire n'importe quoi. Hmm. ils sont capables à faire n'importe quoi. ku jël Ousmane Sonko moo suñu yaakaar taille espoir de toute une nation nga mhm. takkal ko loo xam ne mhm. day taali viol mhm. kon kooku bu ne université est-ce que nekk ñu ñoo ko taal c'est une question baron <laughs>